yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban bilaa adadi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi koor di benn ponk ci juróomi ponk lislaam yi ñu koy dundal dundin bu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba ba tax na télévision académie Minane amal programme bu am solo boo xam ne fas na ko yéenee ànd ak yéen fépp fu ngeen nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew programme boobu nag nii la fas yéenee tëddee. ci suba gi dinañ leen digtal njàngum fajar mi nga xam ni mooy am ci jumaay Touba ji ki nga xam ni moom moo koy taxawee di Serigne Ibrahima Gueye ak Serigne Abdou Lahad waaye tamit ci noonu danañ leen digtal njàngum fajar bi nga xam ni tamit day am si jumaay Daaru Minan ki nga xam ni moom moo koy taxawee di Serigne Khadim Thiam bu fukki waxtu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar dinañu amal animation xasida ci ngoon gi danañu amal njàngum xasida ci résidence Seexul Xaddim ci teewaayu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou waaye tamit dinañ leen digtal waxtaanu koor yi nga xam ni moom mooy am si jumaay Touba ji ci noonu waxtaanu koor yi nga xam ni day am si daaray kaamil dinañ leen ko digtal waaye tamit danañu leen woon fulku bi nga xam ni moom mooy am ca njaarim ak fulku bi nga xam ni moom mooy am ci Thiès danañ leen wanale tamit ak ndogu yi nga xam ni Baay yi dañ koy amal bis bu nekk ci guddi gi dinañ leen wanale ak naafila yi nga xam ni moom mooy am si jumaay Touba ji waaye tamit ak naafila yi nga xam ni moom mooy am si jumaay Masaalikul Jinaan ci noonu dinañ leen wanale conférence su académie Milan bi nga xam ni moom mooy am chaque vendredi ci jamonoy weeru koor bi yépp fas nañ yéene tamit andil leen ay plateau yu am solo waaye tamit andil leen ay reportage ak bépp programme boo xam ni day am ci biir dëkk bu sell bi programme bu am solo bi nag ñu ngi ko fas yéene ànd ak yéen ci diirub weeru koor bi yépp ñuy woo képp koo xam ni dafa yor produit yi te am yéene fésal ko mu jokkoo ak ñun ci suñu service commercial ci cinq 585 57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 Euh, um ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu seriñ sëriñ bi dana nu yabal ci jumaa ji ngir ñu yéene fi wax ne nañ séentu sëriñ bi ne ñu séentu weer yi te lu ci waaye xam nga ñëw yële ko buñ ko yéenee ba noppi nag dañuy ànd ak waa daayiratul muxaddamatul xidma toog ci soowu jumaa ji di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi ci ci réew mépp wet gu am na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 waa commission Dakar bi sax yabal yable nañ fi te ña nekkal ña leen te nekkal foofu it téléphoné nañ leen wax ne ni ñu ko gisee fii noonu lañ ko gisee foofu kon ñu xam ne kon ci ndigalu sëñ Muntaxa ci la ñuy waxe ndax buñ ko gisee ak lu mu leer leer ci noonu faaw danañ dañuy dañ dañuy jokkook moom ba ba ba mu joxe ndigal ci ne na am joxe ndigal gi nag jublu jubluwu ci loo xam ne day saytu ne rek man maa maa yor ndigalul weer wala yooyu waaye ci ci li ñuy séentu ak nan koy waxee ag xibaar yan koy jox ca sukkandiku ba joxe ndigal ci waaye kilifa kenn du ko jiitu moom rek moo moo moo sañ a wax moo sañ a wax ne weeru feeñ na nu door cee top kon ñu xam ne loolu am na kon noo ngi ñaan yàlla ci sëriñ jërëjëf sëriñ Touba weer wi woyof lool ci nun da ànd ak xéewal ak jàmm ak sutura ak teraanga ci jërëjëf sëriñ Touba te sëñ Muntaxa yàgg fi lool te wér ta ba li mu yéene ci yoon mu ko ba ba sosaat leen daan ànd ko moom ci jërëjëf sëriñ Touba xëytal weer wa lay doon ndax eh, ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ne moom maanaam ñëpp ci bokk ànd moom waaw waaw waaw waaw maanaam bëccëgub ñaar fukk ak juróom benn bi lay doon di guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar juróom-ñaar ci nga xam ne alxames lay doon guddi ga di ajjuma kon ñu xamee ko noonu xam ne lépp lëleetu xarit gi daa dëppoo moom lépp ña ko def ci loola ak ñoo benn lañ kon nag mi ngi amaan na ci ndax xam ngeen ni guddi gu ñuy la ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi koor di benn ponk ci juróomi ponki lislaam yi ñu koy dundal dundin bu am solo ci dëkk bu sell bi di Touba ba tax na télévision académie Minane amal programme bu am solo boo xam ne fas na ko yéenee ànd ak yéen fépp fu ngeen nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew programme boobu nag nii la fas yéenee tëddee. ci suba gi dinañ leen digtal njàngum fajar mi nga xam ni mooy am ci jumaay Touba ji ki nga xam ni moom moo koy taxawee di Serigne Ibrahima Gueye ak Serigne Abdou Lahad waaye tamit ci noonu dinañ leen digtal njàngum fajar bi nga xam ni tamit day am si jumaay Daaru Minan ki nga xam ni moom moo koy taxawee di Serigne Khadim am bu fukki waxtu jotee jàpp fukki waxtu ak ñaar dinañu amal animation xasida ci ngoon gi danañu amal. njàngum xasida ci résidence Seexul Xaddim ci teewaayu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou waaye tamit dinañ leen dégtal waxtaanu koor yi nga xam ni moom mooy am si jumaay tuubaa ji ci noonu waxtaanu koor yi nga xam ni day am si daaray kaamil dinañ leen ko digtal waaye tamit danañu leen woon fulku bi nga xam ni moom mooy am ca njaarim ak fulku bi nga xam ni moom mooy am ci Thiès danañ leen wanale tamit ak ndogu yi nga xam ni Baay yi dañ koy amal bis bu nekk ci guddi gi dinañ leen wanale ak naafila yi nga xam ni moom mooy am si jumaay Touba ji waaye tamit ak naafila yi nga xam ni moom mooy am si jumaay Masaalikul Jinaan ci noonu dinañ leen wanale conférence su académie Minane bi nga xam ni moom mooy am chaque vendredi ci jamonoy weeru koor bi yépp fas nañ yéene tamit andil leen ay plateau yu am solo waaye tamit andil leen ay reportage ak bépp programme boo xam ni day am ci biir dëkk bu sell bi programme bu am solo bi nag ñu ngi ko fas yéene ànd ak yéen ci diirub weeru koor bi yépp ñuy woo képp koo xam ni dafa yor produit yi te am yéene fisal ko mu jokkoo ak ñun ci suñu service commercial ci 77 585 57 36 ñi ngi ñaanal xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu te wér ya shihra rabbin karimin fika jaadalana bi laylati alqadri daati alfadli warraqadi